anglais yi ñu ngi fi woon portugais yi ñu ngi fi woon parce que il faut se rappeler que Portugal ñoom ñoo créé woon euh, Gorée tuddee ko seen turu dëkk ak yooyu noonu mais France mu ngi moom Sénégal dëggantaan jaay le 25 janvier 1817 ci Taïf nuyu waa Mali bu baax ñoom moom dog nañ bu mu jaam gi moom ñun moom ñu ngi ci ba tey et si on interroge l'histoire voici une image qui va vous donner euh, des informations. Non, Grégoire, l'autre image, l'autre, les forces françaises en Afrique, les bases euh, prenantes, les, cap euh, les opérations de l'ONU avec euh, la France. Tchad, 900 milliards de francs CFA. Sénégal, 1200 milliards de francs CFA Centrafrique 200 milliards de francs CFA Djibouti 280 euh, 2900 milliards de francs CFA Côte d'Ivoire 900 milliards de francs CFA euh, RD Congo 30 milliards Moluques Mayotte 1460 milliards La Réunion euh, Gabon 980 euh, milliards de francs CFA Golfe de Guinée, 280 milliards. Et ça, c'est la présence des forces françaises en Afrique. Bon, le Mali, il faut euh, l'enlever parce que 72 heures la ñu jox France ngir ñu jël seeni dëbës Mali ñoom nee nañ lakk wa doon lakk nasaraan sax pare nañ ci. ñu ci beneen information un grand homme qui a vraiment révolutionné pourquoi il était intéressant celui qui a rendu l'âme le 25 janvier 2009 il répondait sous le nom de Euh, moom moo def li ñuy wax la révolution de l'administration sénégalaise un des euh, grands messieurs de ce pays a rendu l'âme le 25 janvier 2009 décédé à Dakar à l'âge de 99 ans de Mamadou Dia ancien président du conseil du gouvernement du Sénégal arrêté le 18 décembre 1962 au lendemain de la crise politique survenue au sommet de l'État, il avait, il avait été condamné à la détention dans une enceinte euh, forfaitier, euh, fortifiée par la haute justice. Il avait été libéré le 27 mars 1974, Mamadou Dia, candidat à l'élection présidentielle du 27 février 1983. Mamadou Dia Euh, bis ni ki tey kon la génnoon àdduna bis ni ki tey loolu la ñuy yemandi en attendant les événements parce que tey dafa bari mbir yu ñu nar a waxtaanee euh, Lamine maa ngi lay ziar. Pape Sidi maa ngi lay delloo ziar. jërëjëf. di la nu di nuyu téléspectateur 2STV yëpp euh, comme chaque mardi pour parler du septième art et aujourd'hui Pape Sidi on va parler d'une production pas comme les autres une production bi nga xamante ni nii c'est un peu spécial euh, mais dinañ ci kanam tuuti parce que aujourd'hui Pape Sidi on mmh. a beaucoup beaucoup de surprises Pape Sidi. lay. Euh, notre invité là Pape Sidi c'est lui qui crée les suspens mais aujourd'hui là. on lui crée les suspens. très bien. c'est lui hein, mais on va lui dire bonjour El Hadj. Bon. bienvenue dans le Good Morning. merci beaucoup maa ngi leen di remercier maa ngi nuyu ñëpp ñu fi toog et euh, merci Lamine merci Pape euh, teewal ma fii ci seen émission bi dama koy suivre moom. Ah. <laughs> sama koj dugg YouTube xoolaat affaire voilà <laughs> en tout plaisir. Euh, sauf que Lamine day daw liggéey rek chaque jour ma ne ko bàyyi daw liggéey. et puis le cinéma xam na xam na nu mu demee quoi. a besoin de non sama mais tu t'échappes une fois par semaine quinze minutes par semaine ça Marodi ne veut pas te dire non tu fais pas parce que c'est l'intérêt du cinéma que tu viens défendre ici ah, il y a beaucoup de choses que. kii nu kii eh, famille sénégalaise ba tey recevoir guñ leen eh, bàjjen ñoom bàjjen waa Thiès yi ba tey ah, recevoir guñ leen y a tellement de choses dans le cinéma sénégalais qu'on n'a pas encore traité ah Lamine il travaille pas le petit là <laughs> Papouma comment vas-tu Sénégal <laughs> alors c'est ah, ça <laughs> moom tey nga mën a fecc mbaa nga dee mbaa tànk bi dem rek da ngay gañe mbaa nga ñibbisi moom. mais Pape Sidi ma ne la sawaay bul fi sax expliqué. salaamaaleykum. maaleykum salaam tey bésu dab la incha allah. Eh, oui c'est ça oui. on croise les doigts eh, tous les téléspectateurs de la 2S. maaleykum salaam nuyoo na may. yéen ñëpp génne leen seeni i maillot leen seen drapo drapeau tout ce que vous avez lu am couleur u effigie drapeau national du Sénégal génne leen ko. ça sent la c'est ça oui. <laughs> man de soo ma nekkoon maa nga fa ba léegi man de man dama leen a bàyyi man. dama leen a bàyyi am lan lan. Zé ziar naa la. boobi naka waar. naa est ni sant alhamdulilah. maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ci plateau bi yëpp euh, El Hadj Pape Amar et di leen wax euh, namoon naa leen trop parce que ça fait de cela deux semaines ñëwuma mais di leen wax aussi tamit jeex na mu voici de nouveau waaw mi ngi noonu dama amoon ay kii rek ngant rek mais nice mi ngi cool léegi. de fuir le travail. Le Sénégal doit affronter euh, les euh, Cap-Verdiens ce soir à partir de 16h. À partir de 16h Pape Sidi Sénégal Cap-Vert tey la ñuy football seen vingtième rencontre si dans l'histoire du football. Sénégal ak Cap-Vert daje nañ 19 fois tey la ñuy daje seen dix seen vingtième fois. à 16h fële sa Bafoussam di ñaan Sénégal nag gagné incha allah rabi Pape vingt vingt yi dalaa jaaxal. vingt fois. ñu nag Cap Vert. bari na de. waaw mais parce que dafa amoon euh, benn tournoi bu ñu doon wax tournoi amical Cabral. Mhm. mi nga xam ne ne nekkoon na benn général Bissau Guinée. moom la ñuy sol mbaxaneem yi. voilà léegi nag Sénégal ak Cap Vert seen première confrontation ñu ngi ko defee le 9 janvier 1979. waaw loolu tournoi loolu coupe amical Cabral la lu si ëpp si match Sénégal yi nga xam ne moom joué na ko Cap Vert sur les 19 13 yi coupe amical Cabral la ba sunu dernier match bi ñu joué au mois de juin fii si le Stade Lat Sénégal moo dooroon Cap Vert 2 mais match amical la woon te joueurs yi woon ñu si bëri nekkuñu si coupe d' bi donc tey si kaw deux vingtième confrontation bi mun nañ jàpp ne. dina metti ndax derby la te sunu mbokk Cap-Verdien yi ñu ngi Sénégal sunu mbokk sénégalais yi ñu ngi Cap-Vert mante lépp nañ ko joué dans la fraternité dans le fair play bu nekk Cap-Vert Pakala Diagne hmm. la moom xam ngi ñaan ñi yàlla daal Sénégal gañe insha allah rabbi autre bonne nouvelle mooy Ismaïla Sarr retrouve la tanière aujourd'hui il va jouer non il va pas jouer oh c'est pas une bonne nouvelle alors non si parce que dañuy bu ñu gañee insha allah rabbi il sera opérationnel Euh, nu mu tuddati mm, Aliou Cissé en conférence de presse wax na ne ne Ismaïla Sarr buy agsi il est opérationnel maam du ñëw ñu naan dañuy xoolaat ndax tànk bi waaw déet bu accès rek ils se font dans le groupe donc nag mais si revient de blessure peut-être du amati vivacité wala quatre-vingt-dix minutes yu mu mën a tenir mais gis nañ ci story Instagram mu Ismaïla Sarr il s'est entraîné très très dure pour revenir en force. Ah. et il en a vraiment envie ndax am na benn sponsor bu nekk ci équipe nationale. danoon def ay vidéo ay capsule Ismaïla bi ñu ne ko instant lan lan moo la gën a metti si sa si sa carrière équipe nationale mu ne l'élimination Sénégal Cameroun en quart de finale nee na il a jusque là ñu ne ko lan mooy sa rêve ren mu ne moom il veut dafa bëgg boot équipe bi yóbbu ko finale donc sa san bon Ismaïla Sarr qui ki fait la fierté de la sélection sénégalaise en U20 et en donc bu ñëwee ne bëgg bootu jël statut cadre bi c'est une bonne nouvelle donc l'arrivée de Ismaïla Sarr nous fera un bon bouffée d'oxygène. bàyyi moom. amul problème beneen bi Pape Sidi ma amul dara ma xool. dañ may baab ni bul ma sol mayo de mais bu ngeen ma baab du ma ko sol baab leen ma wala ma bañ sol du ma sol non baab leen ma doom baab léegi Pape vous n'êtes pas convaincant au nom de la population sénégalaise oui man j'ai fait un appel solennel na ñëpp génn seen i lépp lu am effigie Sénégal solal mayo bi s'il vous plaît pour le peuple sénégalais faale bu yàlla faale bi sol ko Chéri Kadia bayam man Gambie mooy sama équipe temps yi de <laughs> man da ragal naa ñu ne Moussa Baro daa am Covid non man dama eh eh nañ waxante dëgg Cameroun li ñu nekkee ñaaw na ci deru Afrique. Mhm. quand Klopp disait que la la Coupe d'Afrique des Nations c'est une petite compétition ce genre de pratique lui donne raison sur toute la ligne. en tout cas le chroniqueur maa Nigérien le chroniqueur euh, algérien Djelit nee na il mise il veut miser sur Winamax à une. Ah, nee na fii ba Coupe d'Afrique bi jeex nee na moom loolu la miser si Winamax fii ba Coupe d'Afrique bi di jeex cas Covid duñ ko gis si équipe camerounaise. nee na loolu la loolu la bëgg a mise mani la Cameroun li ñu def. Euh, sama mayo bi nice na trop xaaral ma sol ko. eh yow Badiane bàyyi sa programme boobu ngay expliqué. dama waatoon ne damay bàyyi supporter équipe nationale mais xam nga rek instant yi pression bi mu ngi may commencé gañ. ah c'est joli ah. waaw ma génnee sama lacoste bi sax. Abel soo déggul soo micro di def ay yooyu du man Papa Umar la. ok léegi nag ñu déglu ki nga xam ne ne mooy Aliou Cissé qui a déjà annoncé la couleur hier en conférence de presse ban taxawaay la gis tey ak match bi ban jàngat la si am ñu déglu Aliou Cissé. bien travaillé euh, vendredi euh, ça a été la la séance euh, la plus difficile en réalité de la semaine on a travaillé en puissance hier aussi on a on a bien travaillé je crois qu'on a profiter de l'ensemble de tout notre effectif pouvoir vraiment faire. Euh, deux séances euh, très très très très intéressantes. Donc euh, oui, euh, le Cap Vert, on, on, connaît. Je crois que sur ces dernières années, on a dû les jouer euh, euh quatre, voire cinq fois. La dernière fois qu'on les a joués, c'était au mois de, au mois de juin. Certes, c'était un match, euh, c'était un match amical, mais ce fut un match quand même assez âpre. On, on sait que c'est, c'est un derby, une, une, très belle équipe. Voilà, donc elle n'est pas là par hasard. une équipe qu'on qu respecte et comme vous le dites, hein, euh, l'étroiticité qu'il y a entre le Cap Vert et le, Sénégal donne encore beaucoup plus de savoir à ce... Cap Vert ak Sénégal wax na ko joué nañ lu mat cinq fois ci dernières années xam na Cap Vert mais Cap Vert particularité mooy ren dafa indi benn pressing haut moo tax ki nga xam ne ne mooy le dernier but euh, le bureau de du Cap Vert si éliminatoire u équipe nationale du Sénégal muy Cheikh Ndoye c'est parce que Cheikh moo moo dugaloon deuxième bi bi Sénégal Cap Vert éliminatoire coupe du monde nee na Cap Vert li mu indi tey si coupe d'Afrique bi mooy pressing o donc ñun tamit li ñu leen war a mën a def mooy tamit ñun tamit ñu def un bloc haut comme ni Côte d'Ivoire defoon Algérie bloc o wan leen ne ñun dañoo ñëw te dañ leen di gagné incha allah beneen bi tamit mooy Alain Giresse a benn pic à l'équipe nationale du Sénégal nee nee na l'équipe nationale du Sénégal mi ngi si doute ay doute yu metti amul certitude Aliou Cissé amagul yenn certitude yi Aliou Cissé nag tontu na si li nga xam ne ne mooy loolu la Alain wax si suñu équipe nationale Giresse n'était pas coach de nous. oui il était coach de du Sénégal ñu déglu li Alain Giresse li mu ton li ñu déglu Aliou li mu tontu Alain Giresse Giresse lu si yoonam si ñu téléphone, c'est quelqu'un qu'on a, on a de très très très bons rapports, c'est quelqu'un qui connaît très bien le football et connaît la difficulté du métier. Et c'est quoi être entraîneur, <laughs> sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal parce qu'il a goûté à ça. Donc euh, euh, bien sûr euh, avec les performances qu'on a fait lors de ces, trois premiers matchs-là, c'est normal que le Sénégal soit critiqué, c'est normal qu'aujourd'hui que les gens, eux, de nous. C'est eux qui doutent de nous. Mais nous, nous ne doutons pas de nous. Nous, nous connaissons notre, notre force. Mais comme je le dis, parfois il y a des aléas dans la préparation d'une équipe qui font que euh, bah, par moment vous vous débutez pas bien. Euh, mais ça n'a rien à voir avec le, avec, euh, avec le doute. Mes joueurs ne doutent pas. Euh, Khalilou, il est là, il le sait. Il y a, il y a, il y a plutôt une bonne ambiance au, au, sein de cette, de cette tanière-là, euh, mélangée d'une grosse, d'une grande concentration. Donc euh, Euh, oui, c'est vrai qu'on venait, on est venu avec beaucoup de certitudes. Et comme je le dis encore, beaucoup de choses ont fait que ces certitudes-là peut-être se sont effritées. Mais ce n'est pas non plus euh, le désarroi dans la tanière. On est concentré et ce match du Cap Vert, et comme je le dis, euh, nous devons nous concentrer sur ce match du Cap Vert au lieu de parler des trois matchs qui sont passés. C'est fini maintenant. Euh, Après-demain, on aura vraiment un, un, un combat très difficile face à une très bonne équipe du Cap Vert, très bien organisée, qui viendra ici pour justement faire, faire tomber le, Sénégal donc à nous de nous préparer. Hmm. Aliou Cissé nee na ñëpp ñu ngi koy xaar Sénégal Cap Vert moom c'est à eux de se préparer tontu bi mu tontu ki nga xam ne mooy Alain Giresse mooy ñoom douté wuñu ci seen potentiel l'équipe nationale du Sénégal ne doute pas de ses potentiels. peut-être na configuration environnementale ak configuration compétition moo tax ñoom les consultants les entraîneurs ak les experts. en football di douter ci équipe nationale du Sénégal mais le doute n'existe pas dans la tanière. defar naa sama classement ma wax la bàyyi woon naa leen mais maa ngi leen doon liggéey. mais yow nañ déglu Aliou Cissé nañ déglu Kalidou Koulibaly lim ci ñambaasaat ndax match bi da ko am saveur particulier ci moom. ah Kalidou aussi. passer ce tour-là notre premier objectif était passer les poules on l'a fait. malgré ce que ce qui se disait sur euh, sur notre jeu mais le plus important c'est qu'aujourd'hui On sait que ça va être difficile, un derby. Les derbys jamais faciles à jouer. Mais je pense que le Sénégal sera plus que motivé pour, euh, pour passer ce tour parce que euh, on a à cœur de montrer à tout le monde qu'on que a notre place ici et qu'on qu veut, aller très loin dans cette compétition. Ils ont à cœur de montrer que leur place est ici. Ils ont, à cœur de montrer que nous sommes en finale. Alors, si c'est ça, l'équipe a travaillé. dans la journée du vendredi deux séances pour équipe bi monter en puissance en plus de darñi d'engagement et il est confiant si match tey bi Pape Sidi ne da nga am sama classement laa def man ba pare kon no ñu déglu bàyyi de mais dama doon classé waaw ñu déglu le classement de Pape Sidi Fall 4 3 3 ci cas mhm. évidemment Kalidou Koulibaly défense mhm. Pape Abou Cissé Abou Cissé à côté de euh, de Kalidou mhm. Euh, droite Bouna gauche Diallo. Mhm. d' accord nga. d' naa foofu. digg bi Idrissa Gana Gueye Mampalys Mendy Pape Matar Sarr comme milieu offensif. Mm -hmm. excentré droite Bamba Dieng ca pointe ba Famara Diédhiou. sa classement baax na sa classement baax na mais dama lay fàttali ne. Euh, dañoo est-ce mais mais xoolal li nga xam nga lan mooy problème bi. <laughs> Uh-huh. c'est-à-dire euh, Abdou Diallo a été convoqué comme ak central. donc ce du ce serait mal mu dem coulisser ak gauche parce que mënoo convoqué ñaari latéral gauche et Saliou Ciss match bi passé il a fait un bon match. donc sa classement bi nga jox ak yi nga xam ne ñoom démb demoon nañ terrain c'est un dernier dispositif. bi nga xam ne équipe nationale Sénégal teg na ko